alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmuci suunihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayyidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaihi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 wa rahmatullahi di jël si waat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci wàllu sunna waxoon naa la ko démb ci waxtu wi ne sunna daal buñ ko waxee rekk mooy lu yonantu bi wax wala mu jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam mu yëg ko te noppi ca su ma ne kanamam rek maa ngi ca luñ jëf moom mu yëg ko te noppi ja ndax bu ko yëgee bu teguwul ci yoon rek ca saasa la koy weddi dàq loola bañ ñu koy woyal kon nag kilifa yëpp mënuñoo sunnaal war war nañ koo roy ci buñ gisee lu baax ñu dëgëral ko buñ gisee lu bon ñu weddi ko ndax lépp luy lu bon buñ ko weddiwut bu fi yàggee rek soppeeku dëgg loolu la falaasafa yi di wax boroom xam-xam yu bari nag seen werante mooy waaw lu yonent bi waxut nag moom ci boppam jëfut ko lu cay xàtte ñu bari mu rawatina mutasawifiina yi xam lool na xam hadis ñu ne loola daal dara newu ca ndax bàyyi bu fekkee dafay tegtale tere kon du tere di jariñati ñi tegtaloo hadisab ibnu abbas bi mu génnee ci yonantu bi abu daawuda solo ko mu ne baasa allahu nabiyahu wa ansala kitaabahu wa axalla xalaalahu wa xarama xaraamahu fa ma fa huwa xalaalun wa ma xarama fa huwa xaraamun wa ma sakata anhu fa huwa afuun loolu moom lañ tegtaloo ñi nga xam ne ñooy salafiye yi ñu ne daal lépp lu yonantu bi waxut kenn waru koo wax lépp lu yonent bi jëfut kenn waru koo jëf ku ko jëf def nga bidaa te bépp bidaa rek ak riir la gépp ak riir dafa yóbbu nit safara ñi tegtaloo xadisab maanaam kullu muxdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalala wa kullu dalaalatin fi ñoom ñu ngi tegtaloo diis boobu su ko defee nag mu des nag atte yi nekk ci suñu kanam kenn ku ci nekk am na xel kenn ku ci nekk tamit tabaarakallaa am nag ràññee mu xool saxaaba yi fi nekkoon ak yonantu bi di jëf lu yonantu bi jëfut xoolal fa ñu mujj ak ñooña ni ñu bëri ñooña bokk na ci xadis boo xam ne Buxaari yu moo ko solo mu ne benn saabi yu bu ñuy tuddee Rafaatu bnu Raafi al-Sarqiyu moo ne qaala kunna yawman nusalli wara annabi sallallahu alayhi wa sallam falamma rafa'a ra'sahu min arrakaati qaala sami'a allahu liman hamidahu qaala rajulun waraahu rabbana walaka alhamdu hamdan tayyiban mubarakan fihi falamma nsarafa qaala manil mutakallimu qaala ana qaala raaytu bid'atan wa thalathina malakan yatabaadurunahu ayyuhum yaktubuha awwalu buxaari yu moo ndi hadis bi mu bokk ci hadisu rafaatu bnu rafi yi ci la ko jëlee mu ne benn bis rafaa mooy wax ne dañ doon julli ci gannaaw yonantu bi yonantu bi siggi rek ca rakkaa ne sami allahu liman hamida benn góor ca gannaawam ne rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fiihi yonent bi ne bam sëlmalee mu wëlbatiku ne ana doon wax wax jooju ndax jooju wax musuma koo wax ci sama julli jooju wax kenn musu koo wax ci sama julli ku nekk sama gannaaw kon nag ko xam fitu di wax lii te lii musuma koo wax musuma wax ne wax leen ko timit waaye mu gis ne rek yonent bi comme terewut ko rek daal dara niwu ca kooka ne ko rafaatu ne ko man mii maa ko wax yonent bi ne ko li nga wax a baax te rafet lu ëpp fanweeri malaakaa ngi nii maa ngi leen di gis ñu ngi njëkkalante kenn ku nekk ne ko maa koy njëkk a bind kon rabbana walakal hamdu lañ xamoon ca xemukaay ba te boo demee ci fuqaaw yi dañ ne loolu fi mu tàmbalee ah, yonent bi dafa yaroon saxaabaam yi ci ñeme jàkka ku ci ñeme faat jullik mbooloo ci ñoom amut bu ñu noddee rek ñu ngay njëkkalante kenn ku ne fi ngay génne jëm ci jàkka ja bu njëkkalante sàtte su njëkk sa Abubakar nekk na fi ak yonent bi keroog ba mu tuubee ba ni yonent bi génn àdduna xamaluñ ko benn julli gum mos a julli gum a faat te ngànt gu ko ñor gu ko waral waralu ko ci gannaaw yonent bi benn bis nag mu kaw a tardé yonent bi di julli ba dugg ca ab rakka jàng faatiha ku saar ba rukkoo muy door a dugg ci jàkka ji te fuqaawu Maalik ne nañ ab rakka boo fekkee wudul koor ba sa cër ya dal ca bokkoo ca yàlla may ko rek mu kabaar kabaar ab xarmal ci taxawaay kabaar kabaar ak rukkoo teewoom ya ba cër ya dal yonent bi door di siggi mu sant yàlla ci wuure wi naroon koo faat te xamut kon musiba mu mu ko cay dal sant gi sant yàlla ci xolom rekk waaye yàlla moom yaalamu sirra wa axfa yonent bi di siggi jibril ñëwal ko ne ko sa borom nee na booy siggi na nga déclaré ne yàlla dégg na jaam bi ko sant yonent bi siggi rek siggee xaaleeg sami allahu liman hamida ba mu ko waxee aboubacar xam ne moom mii moo sant yàlla ci rakka bi naroon koo faat te kon xiwu rëy faat ko xamatut fu mu koy dabaatalatee moo tax moom tamit ca saasa yonentu waxut ko dara moo jël responsabilité boppam ne rabbana walakal hamdu yow yàlla yaay ki sant moo tax ma sant la ndax man xam naa li nga ma defal foofa lañ ko yoonalee ñu continuer di ko def ci julli rafaatu am fit wu day ni yokku ca ñetti baat maanaam baat ya mooy tayiban mubarakan fiihi te loolu yonentu mos mos ta wax ne yokk leen ko ci mos ta wax ne def leen ko digle diglewul ko fenn waaye gisuñ mu tere ko tamit fenn mu ne kon loolu njëggal rek a ca ne lu yonentu waxul dara daal dara nag ko ci moom mu gis ne lii rafet na ci te mën naa ànd moom bu doon sér la mën nañ ko caa ñambaas ñaari pisiye ñoo niroo ko defee mu wax ko rek yonentu bi sëlmal wëlbati ko ne ku doon wax wax ji mu ne ko man mu ne ko li nga wax a rafet fanweeri malaaka lu ko xëpp ñu ngi taxaw kenn ku nekk ne maa koy njëkk a bind kon lii ab saxaabiyul jalil wax na ko te yonantu bi waxut ko yonantu bi waxut ki fenn wax leen ko waaye gis na ne yonantu tamit terewut ko fenn mu jàpp ne lu yonantu bi terewut dara newu ca ndax lépp lu dara ne rek yonantu tere na ko moo tax mu sañ koo wax kon lii def na lu yonantu bi defut ci kanam yonantu bi kon kooku boo ko bëggee dugal ci kullu muhdasatin bid'a foo jëm ñaareel bi am na benn saxaabi bu mag bu tedd nga xam ne tabaarakallaahu xisaam siiw na yonent bi moo leen yónni woon ci benn xare ulama wu siira di ko tuddee sariyatu sariyatu foo ko déggee mooy ñàngal mooy xare boo xam ne yonentu demut waaye dafa xeble yàlla dogal nag ñi dem ba ñu demee ca xare ba xiif dab leen gannaaw bañ duggee bañ bañ bañ duggee ca àll ba ñi seen génn gàdd gu toog ñi dem fa di ñaan ndox ñam ñooñe ne leen leen dal lañ bañ mu dal ñu ndax yéen kat yéen a ngi jëm xamagu leen fu ngeen yegg ñun tamit xamaguñ fu ñuy jëm ah ñu ne ko ñun de ah, ñu ne kon baax na waaye gis nga ay taalibe di jàngkati alquran ku leen na toroxal yàlla wan la ko ku leen na ma yàlla wan la ko ñi wane gannaaw tuuti rek jaan ja matt kilifa ga xam nga nag jàngkati alquran yi ku leen gannaawal yàlla gannaawalul leen ndax ku tiit seeti leen kuy ngénte ji seeti leen ku bëgg takk soxna seeti leen ku fase sa soxna bëgg seet noo koy mën a jëlaatee seeti leen tabaarakallaahu ku bëgg a seeti leen ku bëgg a seeti leen ku sa bopp bi ci nga bëgg ko la ca ñaanal nga seeti leen ku biir bii métti mbaa nga feebar nga seeti leen ànd ak loolu lépp boo xee boo amee diplôme ci tubaab professeur bi la jàngaloon boo xamee boo boo am doctorat nga am ko mënoo caa jëlee lu motu jiit waxuma la lu mot ci jaam daara ja rek ngay seeti. ñi dem seeti daara ji nga xam ne yonent bi moo leen formé xebal leen ñu tukki mi ne ñëw leen bu ngeen ñëwut du baax de lan la ñu ne ko suñ kilifa gi. moom la jaan mat ndax xamut ci ku am ak mocc gu mën a wàccee jaan ka jiite woon ñàngal ga am na ñu ne sax ah, maanaam Omar ibnul Aasi la moo ñëw ne leen man mii am naa mocc gu mën a mocc jaan ana kuy jaan ji matt mu ne mi ngi kilifa gi tàllal tànk ba wala loxo ba matt matt ba daal mu jàng fatiha du ma wax fatiha rek de fatiha rek ndax muy alquran lépp a ngi ci te yonent woon ne dafay saafara bépp jàngoro lu dul dee ko defee rek mu jàng fatiha tafli ko waaj a tissooli jaan ja wàcc mu ne nag gannaaw njëkk muy def na dafa ne da may weexal nag de da may weexal de su ngeen ma weexalut duma ko def ñu ne ko waaw duñ lay weexalee mu gestu xol gàtt ne yii yëpp ngeen may jox ñu ne bañ compter gàtt ya mat na fanweeri gàtt kon de weexalam nga weex na ci mocc ñu weexal la fanweeri gàtt waaye nag alquran moom ëpp ko aa ba mu ko jàngee jaan ja jox ko ko hóoluhut koo lekk ndax mos ta ñëw ci yonantu di def lu dara yonantu bi ko danga may fay mos mosul gis fenn fu yonantu bi ne ku leen bëgg a loo dara ci téeréeb yàlla bi na ngeen ko fayeeku waxut ko fenn waaye gis na tamit ne terewut ko fenn mu ne waaye lu yonent bi noppi tere ah, terewut ko dara newu ca loolu rek lay tekki kon nag moom mu sañ a fayeeku lu toll ci gàtt yooya waaye ñemewut ko lekk rungu leen ba ci kanam yonent bi mu wax ko ne ko mu wax ko fi jaar ah yonent bi wax ko ne ko loo ko defal mu ne ko fatiha laa ko jàngal mu ne ko wama yudrika ah, annaha ruqyatun ku la xamal ne fatiha waaye nag qad asabtum iqsimu wadribu lii maakum sëhman suma daxika yonent bi ne jot ngeen njub de séddoo leen yéen ña demoon ñëpp yéen ko bokk séddoo leen ko de yaa moccoon waaye yow kenn moomoo ko de waaye bu ngeen koy séddoo séddalaa leen ma ca bu leen fa bu leen ci fàtte sama cër bi kon kii de def na lu yonent bi defut carrément waaye xam na ne lu yonent bi li mu defut waxut ko waaye terewut ko loola dara newu ci moo tax mu sañ koo def kon bu ko dugal ci kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala du sotti ka ca tegu mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa mos naa yónni benn ñàngal ci ab pare ñooña dem yàgg fa lool kim leen xebaloon mu nekk seen général ba di ilimaan ja waxtu julli yëpp gannaaw fatiha wenn saar lay jàng muy qul huwallaahu tusubaar qul huwallaahu ñaar yu njëkk ya takkusaan fatiha qul huwallaahu ñaar yu njëkk ya timis fatiha qul huwallaahu ñaar yu njëkk ya fajar wala jullit suba fatiha ña qul huwallaahu ñooñe ne kii de lii mu def mosu ñoo gis yonent bi def ko lii mu def timit ci moom la njëkk gis mu def ko gisuñu yonent bi def ko gisuñu fenn timit yonent bi ne def leen ko moom mu xam fitu def lii kon nag buñ demee ci yonent ba daal danañ ko laaj kii mu def foo ko teg ñu néew ne ko ah yow yonent bi dem nañ ci xare ba de alhamdulilah nit si nañ ci jàmm waaye nag ñu ngi lay kalaamee kii nga jiitaloon ñu ci xare bi muy suñ kilifa gi mi ngi nii daal ala kulli haal diiram lañu fa nekk ci xare bi yëpp waa Fatiha qul walaaw rek tisbaar takkusaan timis gee suba falaqeen fi jàngut ko naaseen fi jàngut ko ayatul kursiyoon fi jàngut ko suratul qadriyeen fi jàngut ko moom daal Fatiha qul walaaw rek te loolu musuñ gis nga def ko musuñ dégg timin nga am nga digal nga digle ko do waxoo ca dara nag ah moom nag mu def ko yonent bi woolu waaja ne ko waaw yow lu la xiir ci yeneen saar yi nekk fi taar yow ngay jàng xul walaaw rek mel ni moom kenn rek mooy alquran ah mu ne fa ana uhibbu an aqraa biha looloo tax ba nga ko defee nag yonent bi ne ko lu tax yow nga def ko mu ne ko daal dama gis saar wi ni mu wéetalee yàlla gisuma wenn saar wu ko wéetale yàlla ni mu joxee yàlla gëdd gisuma wenn saar wu ko joxee yàlla gëdd melokaan yi nekk ci moom gisuma ko ci wenn saar moo tax ma sopp ko loolu tax man tamit julli gu ma julli jàng ko yonent bi ne ko sopp gi nga sopp saar wi dugal na la aljana sopp gi nga sopp saar wi sax yàlla sopp na la fa qala rasul sallallahu alayhi wasallam axbiruhu anna allaha yuhibbuhu rawahu muslim muslim moo ndi hadis boo demee nga ci fekk kon kii def na lu yonent bi defut waaye yëg na ne rek lu yonent bi defut terewut ko dara newu ca lu dara ne lu ne yonentu wax na ko kon lu dara newut nag comme waxu ca dara ku ko def dara warul la caa fekk waaye bul waxati ne lu yonent bi defut ku ko def rek indi ko bid'a kullu kullu muhdas maanaam kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala fooy dugal kii sahabiyul jalil bi bi ci tegu tamit tabaarakallaahu dellul ci téere yi rek ñoo koy lim ku mel ni jaabir moom ci boppam moo génnee hadis bi fekk na yonent bi mooy wax jaabir génnee hadis bi yonent bi ne ra'aytul maanaam uritul janna fa ra'aytu imra'ata abi talhata summa sami'tu qashqashatan fa idha bilalun wa fi riwayatin ukhra daqaltul jannata fa sami'tu qashqashatan amaami fa qultu man haada qaala ana bilaalun qultu bi ma sabaqtani ila aljanna qaala ma ahdastu illa tawaddatu wa ma tawaddatu illa anna lillahi rakaatayni qaala biha lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tabarakallahu moo ko wax ci hadis boo xam ne dama ci fathul baari bi sarhal buxaari yu Musa da nga ko fekk ci raqmu ñetti junne ak ñeenti téeméer ak juróom trois mille euh, maanaam trois cent kon quarante cinq da ko ca fekk ñetti téeméer kon ak ñeent fukk ak juróom da ko ci fekk su ko defee mu ne jaabir a génne hadis mu ne yonent bi nee na wanee nañ ma aljana mooy benn mooy benn riwaaya ba beneen riwaaya ba ne dugg naa aljana bam ne wanee nañ ma aljana ma gis benn jigéen di jigéenu abi talxata ma dégg benn yëngatu ndeke bilaal la beneen riwaaya ba ne dugg naa aljana ma dégg benn yëngatu sama kanam ma ne waaw kii kan la mu ne man bilaal la ma ne ko noo def ba jiituma ci aljana mu ne ko daal musuma toj le lu dul ba jàpp naa musuma jàpp lu dul ba julli naa ñaari rakka te xam nga loolu yonent bi defut ko yonent bi tamit digle ko ku toj leeti jàppal waxul fenn tamit ne ku jàppati bala ngaa toog wala ngay wax dara jullit ñaar rakka amut moom nag mu sañ koo def te yonent bi defu ko mu sañ koo def te yonent bi waxu ko yonent bi ne ko ah kon ndeke loolu la kay nga amee lii kon xoolal bilaal saña su tojlee rek julli jàpp julli ñaari rakka nga xam ne sos bi daa ji nga xam ne moo ko def yonent waxu ko jëfu ko ki la xeeyoo tey dugg aljanna ci place bu kawe booba waaye waaye kon bu ngeen xeboo daal ñun ñëpp nañ d'accord ne lu yonuntu bi noppi waxut ca dara dara newu ca lu lu dara ne rek wax na ca dara lu dara ne buy njëriñ wax na ko ne def leen ko lu dara ne buy lor wax na ne baleen ko lu mu waxut dara ne wax dëgg yàlla nañ ko def rek ne loolu afu la jéggal la ku ca ku ko def tamit dara newu ca waaye buñ ko dugal de lépp lu yonent bi defut ku ko def ah, danga ngaa andi bidaa te kullu bidaatin dalaala déedéet kon fooy dugal bilaal mile nga xam ne mooy suñu maam di nit ku ñuul éthiopien la mooy ki gënoon a jege yonent bi moo daan noddu bu doon liqaam te noddukat bu ne ak liqaamkat bu ne moo gën a jege ilimaan ja te yonentu moo doon ilimaan ji moo doon bëkk néegu yonentu bi yonentu daana ko ne ko maanaam dundaleel bu ragal ñàkk anfiq wala taxsa min maanaam min allaahi min al ilaahi iqlaalan demal ca téere bu ñuy tuddee buxyatul mustafid dana la ko indi ci loolu ma wax la ne ko del joxe bu ragal ñàkk lu fi jugee ko yàlla indi lu ko ëpp su ko defee kon nag bilaal mii di suñ suñ suñ suñ mbokkam nit ku ñuul tabaarakallaahu def na lu yonent bi defutoon def na loo xam ne yonent bi waxut ko waaye xoolal lam ca jëlee kon nag yooya du jeex su ma ko doon topp du jeex kon li fi des rek mooy maanaam kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar hadis la wér na waaye ulama yi dañ ne am la juñu taxsiisal xadis bi ko taxsiisal mooy man ahdasa fi amrina haada maa laysa minhu fa huwa raddun suñ mbir mii ku ca sos lu ca bokkut ñi delloo la ko kon luñ cay déggee ku ca sos lu ca bokk nag kenn du la ko delloo ñii ñëpp ma tudd dañoo sos lu ca bokk kon bul waxati luñ sos lu nekk bi daala déedéet nel luñ sos lu ca bokkut kon kii jiite woon sariyatu ba xul walaaw bi mu sax di ko jàng ci rakkaa bu ne ci diina ji la bokk ndax naka jekk ci julli ñaar rakk njàkk fatiha ko saar ma nga ca amul fenn fu l'islam précisé ne sar sàngam rek lañu war a jàng waaye waxul tamit ne ngaa war a sax di jàng wenn saar rek tamit loolu xamut loolu da koo bàyyi rek yaatal ca ñëpp kum neex sax benn saar di ko jàng kum neex jàng fii jàng fële dara nekkut ci kon nag deful deful leneen waaye fa defee neneen defee neneen dara niwu ci li bon mooy def leneen fekkoon ne fa jàngoon Fatiha bam ca bàyyee ko di jàng ay jat wala ay mocc yu kenn xamut kooka bu ñëwee rek yonent ne ko lii nga def bokkul ci man ahdasa fi amrina haasa ma laysa minhu fa huwa raddun wa ma huwa minhu nag kon laa yuraddu ku jëfa lu ca bokk nag kon kenn du ko ko delloo kon xul walaaw kay ci diina ji la bokk yonent bi ne ñettam yi sax saar kaamil la ñetti xul walaaw kaamil la mu gis nam nam wéetalee yàlla ak nim gàttee mu sopp ko naka noonu tamit kii di rafaatum nu raafiya gis ne sami allahu liman hamida ci julli la bokk ci diina ji la bokk waaye tamit rabbana walakal hamdu ci la mu ne nag moom mu doole ci hamdan tayiban mubarakan fiihi fii waay waay waay kooka ala kulli haal daal dafa defee neneen waaye defut leneen waaye fekkoon ne bam ne rabbana wala kal hamdu mu ne mu dugal ci ay jat wala ay mocci wala indi ay baat yu kenn xamul nu muy tekki yonent bi da koy dal na bu ko fi waxati ca saasa la koy la koy la ko koy delloo waaye nag daf ko caa saxal wan ko ne ko ngaa defee neneen waaye defoo leneen li nga def neneen na nga defee neneen dafa rafet lool ba lu ëpp fanweeri malaaka ngi taxaw kenn ku ci nekk ne maa koy njëkk a bind. Bilaal mi tamit fa defee neneen waaye deful leneen. ndax kat bëgg nañ ci jullit soo tojlee rek nga jàpp waaye waaye ku taxoo njàpp heure bu ne kenn mënu laa liggéey ba jàpp la kenn mënu laa jéemuñu ba jàpp la kenn mënu laa kortu ba jàpp la yaakaar naa ne sax boo nekkoon at athlète di daw ku la dàqee du la jàpp ku yor njàpp ku la dàqee du la jàpp yéen ña nekk ci jaaye ca euh, Italie ca tefes ya Espagne France ñi leen di dàqee na fekk ñeen ànd ak njàpp rek ku ci am njàpp bu la tubaab yi duñ la jot kon ku yor njàpp kenn mënu laa jàppati ci dara kon nag loolu am na doole jàpp am na doole nga fexe tamit ne su ma jàppee bala maa toogati julli ñaari rakka xoolal loolu gannaaw suga li ci borom xam-xam yi wax ci ay ngëneel kenn xamut ni mu toll te boo ko mënee boo jàppee muy waxtu dagana naafila rek euh, jullil ñaari rakka bu dul waxtu dagana naafila mu fekk la ci biir jàkka rek waxal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñeenti yoon kon danga nga am yoolab ku dawal ñaari rakka ya kon la ma yoolu nga ne demeet kon yii yëpp ñi ngi koy def ci jamono yonantu bi yonantu bi dara su ko defee kon dañoo sos lu ca bokk waaye sosuñ lu ca bokkut kon boo ne ku sos rek li nga sos bi daala ah tax tax miimal ko bañ koo tax siisal da nga xatal lu yàlla yaatal te yàlla mu yaatum mi ku ca xegg rek yaatal waaye sax du ñoom ñooñu rek xalaa kulli xaal xoolal ma Omar ibnul Xataab mi deuxième xalifaab yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sos na bidaa bu yonent bi defut mi ngi nii moom Omar moo dajale saxaaba yi gannaaw bi yonent bi génnee àdduna Aboubacar génne àdduna ci weeru koor mu jël Ubay ibnu Kaab ne leen jiite ñu julli ca jàkka ja julli ñaar fukki rakkaa te yonentoo ngi nii weeru koor dul weeru koor fukki rakkaa ak safaak witar muy fukk ak ñett beneen riwaaya ba ne juróom-ñetti rakka ak safaak witar muy fukk ak benn bi Ibnu Abbas moo ko génnee bi Aysatu moo ko génnee ñaar yëpp a wér waaye boo ko bëggee dëppale bu xatul rek def fukk ak safaak witar bu xatee rek def juróom-ñett ak safaak witar ñaar yëpp wér nañ Buxaari yu indi ñaar yëpp moom mu dem dolli def ñaar fukki rakka te ànd ak naafila weeru koor ak lépp yonantu bi par kenn kenn waaye mbooloo mu ngi ko daan jiite yonent bi jiite nit ñi wala mu sant kenn jiite nit ñi mustaam mustaam ci dund ak yonent bi mustaam ci moom nag mu ne Ubay ibnu Kaab demal ca jàkka ja nga jiite nit ñi ci naafilaay weeru koo yi def leen ko ñaari fukki rakkaa par ñaari rakkaa ngeen sëlmal muy fukki sëlmal ngeen door a indi safaan witar ba ko defee mu xool leen mbooloo ma bëri ànd ak taxawaay ba rafet moom Omar ci boppam mu ne ni'matil bidaatu haadihi di Omar a ko wax ne billaay bidaa bi moo rafet kon ndeke bidaa bu rafet am na ñu kon nag boo bëggee wax ne kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala dugal ca bidaa yëpp ka maanaam defoo ko ay taqsiim ne bidaatun waajiba am na bidaatun mustahaba am na Euh, maanaam euh, bidaatun makruha am na bidaatun boo xam ne muharramatun la am na yëpp na nga ne bidaa yëpp rek neex Omar ne ni'matul bidaatu haasihi fooy teg kon bidaa Omar bii mu wax léegi léegi gin wax ko ne waay euh, yonantu mos na koo def mu jigi la ko bàyyi woon waay waay bu ko yonantu bi defoon mu bàyyi ko Omar dem di ko def du ko tuddee bidaa kenn gën a xam Seyduna Omar sunna kenn gën a xam Omar lan mooy bidaa su ko Omar réeré woon sax kibaaru saxaaba ya fa nekkoon mel ni ibnu Masoud mel ni ibnu Omar mel ni Ali ibnu Abi Talib mel ni ibnu Masoud dañ ko wax ne ko bu ko waxati bidaa lii yonent bi defoon na ko waaye ba mu ko waxee ci seen kanam kenn waxu dara kon day tekki ne loola bidaa la waaye bidaa hab defee neneen la waaye duut bidaa hab def leneen loolu tey tabaarakallaahu boo demee Makka bu la fa weeru koor fekkee rek doo bëgg a ñibbisi yàlla buñ dugg ci nag ah, tahajjud ya ngay di julli rek jëm jëmale bër set nga dem madinatu na dootoo bëgg a ñib seeti di julli ba bër set di jaamu yàlla tabaarakallaahu mu baax lool yonent bi daanu ko def de waaye loolu tamit de biddaa la waaye biddaa defe ne neen rek la lañ def ci diina gi la bokk ndax julli ñaar rakka sëlmal a jekk mi ngi fi fanaanoo ko nag ak mbooloo ma fanaanoo ko tamit yonent bi daanu ko def mbooloo nag nekk sa gannaaw ànd ak yéen ñu koy defee ci jàkk rek loola mooy defee neneen waaye dugut def leneen su fekkoon dañ faa nekkoon ca jàkka ja ñoom ñëpp ñu ne pare nañ ju liggéeyee dafay leen làmp yi ñu tëdd yi nelaw wala ñu nekk fa ñu tëgg wala ñu nekk fa di wax ay jat ak neneen kon dañoo def leneen waaye defee wuñ neneen su boobaa nag kon ñu fokk ñu génnee leen indi leen lu kullu muhdasatin bid'a wa kullu dalaa la waaye nag lii yëpp defee neneen la waaye dugut def leneen mooy nekk suñ boppam darsu bi ëllëg ci waxtu yi bu ñu fi yàlla bàyyee wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu